asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi maa ngi lay fay nuyoo di wax rab bi sarax li sadri wa yasri am li wax lu xoqdata min lisaani xaw qawli may euh, tàmbalee rek ci samay wax di di sant président Boubacar Seye mi nga xam ne moo am xalaat bu rafet bii initiative bu rafet bii nga xam ne daala warlu ko lu dul maanaam citoyen sénégalais yi nga xamante ne dañu ne jàppoon toroxal leen torturer leen ci nguurub Macky Sall moom yaakaar naa ñooñu Macky Sall toroxaloon teg leen ay fitnaal bunduxatal leen moom dafa bokk ci ñooña ndax moom dund na injustice boo xam ne loolu yaakaar naa ni Sénégal gépp nañ ci seen bët ndax moom koo xam ne bañkat la ndax man jàpp naa ne borom fit dëgg nit ko am fit jàmbaar bala nga koo xam nga dajeeg moom ci ay xat-xat ak i tolof tolof nit nag bu ngeen àndi tukki wala ngeen bokk dara wala ngeen nekk lu yàgg di ko xam ndax man xam naa ni fan ya fa nekk ak moom muy Boubacar Seye mii nga xamante ni tey moo moo ma fi invité xalaat xalaat bu rëy bii nga xamante ni Sénégalais yëpp ñoo ko ci war a jàppale moom. yow lañ la lay woon ak si euh, yenn moment lañ lay man nag ñu ma jàppoon novembre deux mille vingt ndax man dama demoon Libya ba ma fa demee tam damaa tukki woon. tukki tam ba moo ko fay def la ma la ma yëkkati woon doonoon sama sama bëgg-bëgg mooy nan laay mën a def ba am teraanga mooy li ma yëkkati woon muy barab boo xam ne nag sénégalais yëpp ñoo fay dem nekkoon nekkoon naa fa ak africain yu baree bari waaw lu lu ëpp ca ña fa doon demit wala jàpp naan ña fa doon dem ñëpp sax mbirum jihadisme yëkkatiwu leen woon man nag may koo xamante ni kenn laaj ñi nga xam ne dañ ma police dañ maa jàppoon ca Touba guy mi ni bi ñu ma fa jàppee ndeke PV bi maanaam ñàkkut nag samay noonu xëy na ñoo ci ñoo ci prox ndoolu dugg ci wax ci loo xamante ni waruñu ko woon a wax waaw loolu moom lu ñu waaw xam naa mën naa koo jàppe ay dëkkandoo wala ay bokk wala yu demee noonu njortu nga li nga xam ne nag xam naa ni ñoom moo ko mënee tuddee noonu bu fekkee mën naa ko tuddee noonu waaw waaye loolu man jàpp naa ni alxuraan wax ni in jaakum faasiqun bi nabain fa tabayyanu suñu borom dafa wax ni maanaam bul la ab kàccoor indilee ab xibaar na nga ko gëstu te seetantal ko wér xool ba lii lii la nit ki wax dëgg wala du dëgg waaw kon ñoom jàpp naa ni seen seen métier yaakaar naa ni loolu bu fekkente ni jàng nañ seen métier ba mokkal ko bala ñoo bala ñoo jël dégg waxi nit dañ caa war a ami preuve waaye nit wërta ñëw rek wax loo xamante ne mënu caa indi benn preuve yaa ngi dégg te gëstoo ko ba mu leer nga ciy sukkandiku di ca di di di maanaam di di di ca tëngu ba tax maanaam nga jiiñ ci nit terrorisme waaw ndax terrorisme baat la boo xamante ni dafa xaw a sew ndax boo xoolee dëkk yi ñu ko dégg yëpp France gi dañ ko fay dégg amoon na fa ak fu mel ne Amérique ñoom li ñu am ci kàttan ñoom jihadistes yi ak moyen jàpp naa ni Sénégal waru leen a mën a jaaxal mais nit ñi nag ak manipulation bi ci am ngeen baal ma lenn ci seen ay nawle seen naataango yoo xamante ni ci journaliste yi ci presse bi bokk nañ ci ñi nga xamante ni Euh, ma gën cee bàyyi xel Libération ak l'Observateur ñoom liñ doon bind daw ci seet yàlla ndax man jàpp naa ne ñoom ñi gënoon jël mbir moom jëmmal ko garaawal ba mu àgg fi mu àgg l'Observateur ak Libération ci lañ bokk ndax dañ leen doon jox PV ba ci man mii di wax yéen sama PV dañoo vérifier sama téléphone bépp message buñ ci fekk boo xamante ne nit dama mos aawee xaalis ñu ne ma financement terrorisme la ba am na ci koo xamante ni bu ma ko tuddoon di ngeen ko xam benn benn benn assurance la jiite convoqué nañ ko laaj ko xaalis bu ma yónnee woon boo xamante ni yàgg na ñu gis ko ci sama téléphone message orange money loolu sax yaakaar na matul sax cinquante mille ñu wax xamal ma ne ma lii financement terrorisme ma ne lii kat du financement terrorisme yaa dégg ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni dund naa ko ci mbir mi muy muy mbir moo xam ne responsable bi jàpp naa ni mooy ministre de l'intérieur bi fi nekkoon Antoine Diome nga xam ne ku ko xam-xam ne nit ku doy waar la koo xam ne dansé la baaxul ci réew baaxul ci maanaam ci benn gox waaw waaw te foo ko fekk nit ñi nga xamante ni xamuñu ko dañuy mbubb da koy mbubboo di wane ni taalibe Sëñ Tuubaa la te li muy wax dara du ci dëgg ndax lenn li taalibe Sëñ Tuubaa koo teg taalibe Sëñ Tuubaa ñun ñëpp ay ay ay njabootu sëñ Touba nga teg ko setu Cheikh Issa Diène lu ñaawe loonu sëñ Bassirou Guèye boobu mooy procureur de la république waaw nga xamante ni man dañ ci yàq sama liggéey ma bëggoon a ma ma nekkoon ci samay samay sama liggéey ñu yàq sama liggéey yàq sama business daan tukki di dem di ñëw di voyage yi ñu yàq sama sama sama lépp li nga xamante ni lépp maanaam maanaam maanaam sama programme woon naa ko sama dund ñu yàqal ma ko waaw téye ma ji. Euh, waaw Macky Sall moom ni ci liñ ci wax ci biir rek président boobu ko sëy wax na wax joo xam ne wax ju am solo la nee na dañ koo war a lancer mandat mu ñëw ndax fa mu nekk kenn waru koo bàyyi muy tambaambalu di yaataa yumbe fu ko neex di def lu ko neex ndax loolu mën naa waaw Sénégal man yàgg naa ko ne naa ne ku fi dee Macky Sall moo la rey ku ñu tëj moo la tëj ndax justice bi def leen ñu def jàpp leen ñu jàpp am am na ñu koy jàppal am ñu koy reyal lu man lu mën a lu mën a am rek lu mu ci mën a doon am na ñoo xamante ni dañoo taxoon tem di ko defal jaay seen ngor ndax alali àdduna ñooñu ñëpp nag li may li nga xamante ni maa ngi koy sàkku ci përisident bu bees bii fi nekk di président Bassirou Diomaye Diakhar fay mooy buñ ci indi benn maanaam maanaam maanaam maanaam ragal buñ ci ragal bu buñ ci tiit comme ñoom ñoo woote jub jubal jubanti nañ ci dem ba jeex est-ce que am ndam ci dossier bi ginnaaw bu ñu amnistie li nga xam nag yi am ci bi sëñ bi man mii wax de yow ànduma ci keneen ak keneen àndu ci ndax tey la ko tàmbalee ñi ñi ci dee ñëpp léegi ñooñu ku leen rey est-ce que am na François Mancabou kooku yàgg yàgg naa ko wax ku ci mel ne Fulbert Samb ñooñu seen i njaboot ñu ngi ni taxaw léegi léegi ñoo ñooñu tey jii ak maanaam maanaam seeni njaboot tey jii. Hmm? il faut que ñu teg ci seen loxo lu leer loo xamante ni loolu war nañ ko topp ba mu leer wërta mën a yem foofu ndax am si bi itam loolu ay tappale la yoo xam ne Macky Sall ba koy def ba mu koy def loi ba mu ko yëkkatee sax opposition bi maanaam ànduñu ci woon ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy yeewi askan wi ànduñu ci woon waaw loolu kii nga xamante ni tam mooy président Ousmane Sonko àndu ci woon am amnistie bi képp ku am mbokk mu mu ci dee wala mbokk mu ñu jàppoon wala mbokk mu ñu tëj wala mbokk mu ñu mu ñu toroxaloon ci nguurug Macky Sall doo ci ànd ay tappale yoo xam dañ dañ cee làqatu rek defoon ko ngir rek bëgg a bëgg mucc waaye lu tax ñu mucc liñ sàcc ci alali réew mi dafa bari nañ nañ ko leeral ba mu leer yaa ngi dégg ñu delloo si waat ko ci réew mi <laughs> waaw ay mbir la yoo xamante ni lépp daa war a leer loolu mooy dëgg man sëtub euh, Cheikh Issa Diène la maa ngi tudd sëñ Soye bu Diagne di sëtu maam Cheikh Issa Diagne waaw di leen sant jërëjëf.